بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب mooy sunu juróomeelu bind ci sunu qasida arraiyatu li cheikhina ahmad bamba radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi amin sunu bind bi nga xam ne moo mujj sëriñ bi mi ngi yemoon ak ñun ci lahu min al ilmi ma lam yaxwihi basharun aw jinnun aw malakun wa sadru mizxaaru tey noo ngi tàmbalee ci lahu lada allahi sirrun laa yutaalicuhu bilkaddi walilmi ruxbaanun wa axbaaru ba tey mi ngi tagg sëriñam bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lahoo am na moom yonent bi ladallaahi fa yàlla sirrun mbóot sirrun sekkare laa yutaaliuhu boo xam ne du ko mën a xam du ko mën a yér kan moo ko dul mën a yër mu ne ruxbaanun ay làbbe wa axbaarun ak ay fóore bil kaddi ci ab coona wala ilmi akum njàng wala ilmi akum xam-xam ne yonent bi salaa salaam am na daraje fa yàlla daraje joo xam ne yàlla rek moo ko xam daraje joo xam ne boroom xam-xami nasaraani ñu leen tuddee ay labbe ruhbaan wala boroom xam-xam yi di ñu leen tudde ay fóore ay fóore luñ sonn sonn ngir bëgg koo xam ak jàng seen téere ya ba sonn loola du tax mukk ñu mën a xam daraja yonante bi sallallahu alayhi wasallam fay nam toll fa yàlla ndax ñii dañoo mënoon a sonn lool ci gëstu xam-xam ndeysaan daan jàng téere yu njëkkee di jéem a gëstu waaye nee na day luñ sonn sonn doonte sonn nañ ci sax bil kaddi wal ilmi sukkandiku ci xam-xam gëstu ba sonn du mën a tax ñoo mën a xam daraja ji yonante bi sallallahu alayhi wasallam am fa yàlla saa boroom mu ne fal xaysu ab taw day zu xajalin boroomu gàcca la day am gàcca min sakk bi juudil barri ci sotti ci dottiwu tabuk aji baax jii di yonante bi salaa salaam mooy ak sotti waaw yonante bi salaa salaam ni mu tabee buy maye ni muy sottee di joxe di dem nee na ab taw da cay am gàcca day xam ne yonante bi moo ko gën a tabee ni yonante bi joxe ab taw mënta joxe noona loolu rek doy na ci misaal yonent bi sax ñun ñëpp fi ne moo jox alxuraan ji gis nga lépp ginnaaw yàlla mooma kon aw turam ak ab liggéeyam àgg na foo xam ne ab taw munu faa àgg taw moom bu tawee mu yàgg rek day daal di ngis mu jeex ëllëg beneen taw ñëw maanaam fal xëyu sa taw day zu xajalin boroomu gàcca la min sakk bi juudil bari ci dottik tabuk aji baax jii di yonent bi sallallahu alayhi wasallam walay su xaabin te garuk ab gol maanaam gaynde gu nekk ci àll farraarun ab dawaa kon la li xaw fi ngir ragal minhu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> nee na bi sallallahu alayhi dafa am ragal yàlla gu nekk ci moom goo xam dafa am hayba am hayba maanaam bàyyima yii ñun ñuy ragal ñoom dañ koy ragal moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma la moom am na ci saxaaba koo xam ne dañoon ànd tukki ba mu yàgg ak gaynde kargaay yi boof ci digg yoon wi nee ñu mu ñëw ne waaw lu tax lu tee mu leen waaw lu tee mu leen ñu ne ko gaynde gee tax mu dem ba ca moom jàpp ci nopp gaynde gi wombar ko ba mu jéggi ba mu dugg ci foora bi mu ne nit ñi jàll leen <laughs> waxuma ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam waaw kii di taalif téere bi rek Cheikh Bamba gis ngeen ko eh, diggante mag rabi àll yi eh, ndeysaan ni meloon waaw ci gii bi muy taalif Matlabul Fawzayni ni ko Sëriñ Saalihu nettalee eh, rab gaynde ga doon dàq mbaam àll ndeysaan kon waxuma ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee naa walay joura bin gaynde gu nekk ca territoire am nga xam ne fa mu nekk dafay ñeme ndax xam ne ne fii ay moromam ñoo fi nekk bokkut ak gaynde goo indi ci biir nit ñi nga xam ne day jaaxle déedéet gaynde gu nekk ci digg àll ba ci màndigam nee na day ragal yonante bi sal di ko daw ndax lan ragal yàlla gi nekk ci moom ay suma taqaf ilaahaka al ahad yaqafka min xaw min xawfika hu kulla ahad saa yow ragale yàlla dëgg-dëgg ragal lu dul yàlla daf lay ragal lëxoo am na moom yonante bi mi ne la xilmi ci lewet maa loo xam ne lam yaxawihi lëqu ko amu ko jabalun aw doj laqaa laaxaa dajee moom yonante mboolem xeeti lor yi fil baraayaa ci mbindee fi waxoo te moom kat sabbaarun am muñaakoon la ne yonent bi muñ gi nekk ci moom moo gën a dëgër muñuk doj xam nga aw doj day dëgër waaw lu tax fii waxut weñ day mel ne weñ moo gën a dëgër ak doj ah ak weñ dëgër na lool waaye nag bu ko teg ca taal ba ak weñ boo ko xambee day dem ba mu na day bàyyi muñ ko dem waaw weñ day ruy ni ndox di ruyee am na noo koy yóbboo ci ay degré ci tàngoor day dem ba ruy tëgg yi rek bu ñu bëggee jubbanti ak weñ dañ koy tàngal bam mu tàng su ko defee nag day day day daal di lambax <laughs> subhanallah waaw waaye gis nga aw doj ah aw doj moom boo ko dugaloon sawar di ko toggit de yaakaar naa eh, la boo ko génnee na mel lay mel rek aw doj dafa dëgër moo tax alxuraan bi muy misaal xolub yéefar ni muy wowe waaw eh, su ma xasat qulubukum min ba'di zalika dana fahiya kal xijaara daa mel aw doj daa mel aw doj ndeysaan aw doj dafa xaw a doy aw ashad wala sax mu gën a tar aw doj ndax doj yi kat am na ci doj yoo xam ne dana fett ndox di ca génn <laughs> wa inna min alxijaarati lamaa yatafajjaru minhu al anhaar ndeysaan kon xolu yéefar moo gën a wow aw doj yàlla na ci yàlla musal ne yonent bi li mu yor ci ak muñ aw doj mënu koo muñ ndax mboolem xeeti lor bu ñaaw mbindeef yi teg nañ ko ko te fekk teewut loola day muñ jàpp ci yàlla ndeysaan ba ko jibril ne wala malaaka ma ne suñ borom nee na gaa lu ñaaw lii ñu la def ñoom ñi ngi dëkk ci ñaari montagne boo ma joxee ndigal damay këppale ñaari montagne yi mu daanu seen kaw ñoom ñëpp ñu dee yow lay xaar yonent bi saa ne ko déet ëpp naa def daal neel saa borom na leen muñal te jéggal leen rek xëy na dañoo xamut même bu fekkee ñoom gëmuñu boo liggéey danañ jur ay doom yi gëm kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo toppee yeneen yonante yi ñu ci bare bari ñoom dañoo ñaan yàlla wàcc mbugal ca yéefar ya sañ nañ ko waaye yonante bi nag da leen a dàq muñ ndeysaan da leen dàq muñ laa tasar eh, yonent yàlla nuuxin ba mu ne yàlla eh, ci eh, bul bàyyi ci suuf dara <laughs> waaw alag leen ndeysaan nee na inna rasula naka yonent bi la sayfun jaasi la yustabaau boo xam ne des na sàkkoo leerloo bihi ci moom muhannadun jaasi joo ju ñu hindaal la ju ñu daas ba ñaw min suyufillaahi bokk ci jësi yàlla yi battaaru di ab ndogaa kon ne yonent bi sallallahu alayhi dafa mel ne mooy leer gi nga xam ne moom la yàlla taal ku bëgg leer faaw da ngay niitu ci leeram gi mënta ñàkk mënta ñàkk genn njub mooy am mooy njubug yonent bi sallallahu alayhi kenn mënta am ak njub te du da nga koo jëlee foofa mënta nekk mustahil moo tax ma ne jësi yàlla la jox yàlla da ko indi ngir lan ngir mu gindi ci yéefar yi nga xam ne jësi dong moo leen mën a moo leen mën a wàññi ndax bu dee julli ñi moom boo leen waaree ñu daal di gëm waaw bu dee yéefar yi nga xam ne ñàkk xam la boo leen waaree ju dellu si waaye ñi nga xam ne dañoo lànk ne duñ gëm yàlla te diine ju du fi taxawee kooku nag yàlla daa ci benn ci ay jaaseem jaase bi ci gën a foor muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di ñëw nag ndeysaan dal seen kaw dal seen kaw ñu bàyyi xel ne xare bu ñu ko waxee rek nekku ne jullit ñi wala yonent bi day fekk ay yéefar mu leen faaw ngeen dugg ci diine ji déedéet laa ikraha fi waaye yonent bi day ñëw ne ah, kon nag comme yéen gëmu leen nekk leen ci li ngeen nekk waaye man nag damay woote sama woote ñu ne ko déedéet doo fi wootee ah yàlla nag ne ko nag loolu amuñ ci sañ-sañ ndax ay citoyen yi ngeen ah, bu ñu leen xeexee ngeen sañ ngeen a fayu waaw ah, aussi na lasina yuqaataluuna bi annahum zulimu lil kulli képp min jumlatil axyaari ci mboolem gaa yu baax yi martabatun daraja ju kawe lakin nama ahmadu waaye ahmadu mii al ma ñu tànn nga ne ko waaw moom leneen la <laughs> moom tànneef la subhaanallah nee na nit ñu baax ñi ñëpp am nañ daraja yonent yi am nañ ay daraja ndeysaan boo doon tudd yonent yàlla Muusa fii daraja yi mu am boo demee ci yonent yàlla Nuuhin wax mu wax la fam jaar Ibrahima lim daj ba yàlla ne ko yaay sama xarit Muusa dem wax ak yàlla Isa ruhullahi nga jóge ci yonent ñëw ci wàllu yi nee ñoom ñëpp am nañ ay daraja de waaye nag yonent bi dacaa bokkut yonent bi kenn du ko tudd di tudd kenn moom dañ koo tànne ca ñooña anaa xiyaaru min xiyaarin min xiyaar doomu aadama yépp boo leen dajale ñi yàlla bind ñépp ña ca yàlla tànn mooy yonante yi yonante yi ña ca yàlla tànn mooy yonant mooy yonante yi mu yónni rusul yi ñooñu yàlla tànn ci fukk ak juróom ñoo xam ne seen tur ñëw na ci alxuraan ñaar fukk ak juróom ñu ngi jéggalu ñaar fukk juróom ñooña yàlla tànn ak ñoom juróom muy ulul mi ne ñoom ñoo ci gën wa min ka wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa isa juróom ñooñu waaw fasbir kama sabar ulul azmi min ar kon juróom ñooñu la ci la ci yàlla tànn juróom ñooñu nag nga ne ñoo gën ci adduna bi lu yàlla bind yàlla tànn ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gën leen nag ma ne yu baax yi baax nañ waaye almuxtaaru moom mooy almuxtaar yonent bi da caa bokkul rek waaye ñoom jàmbaar lañ ndeysaan <laughs> waaw sallaa yàlla na dolli xéewal euh, alayhi ci moom euh, kan mooy doolu xéewal ci yonant bi allësi yàlla mi nga xam ne xaddamahoo moo ko jiital fil jëhri ci lu leer naññi ci lu bér musalliban muy aje doollee musal ko moom yonant bi tibqamaa dëppoog la nga xam ne yaxwaa dana ko sopp moom yonant bi wa yaxtaaru tam koy tànn nee na yonant bi yàlla ni mu ko bëggee soobee ko yàlla na ko yàlla defale noona teraanga ak jàmm xéewal waaw kan moo koy def mu ne yàlla mi nga xam ne moom moo jiital yonant bi te loolu dafa leer waaw te dafa leer baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasulu képp ku am xel dana leer ci yow ne fàng nit jant ni nga da xam ne yonante bi man mooy sama sëriñ loolu moom ku am xel da nga koo xam <laughs> wal aali salaatu salaamu ko maa ngi koy ñaanal yonante bi waaye wal aali ak ñoñ ña man ña nga xam ne xat xawaw làq nañ sarafan tedd nga ay daraja bixtisaasin ci ak jagle nga ne ñoom dong ñoo ko am nga ne ko lu waral lool mu ne li annahum ngir naka ñoom aalu aalu nabi saadaatun ay sang lañ axyaarun di ay tànneef lil waraa di ñeel mbindeef yépp kenn génnul ndeysaan nee na salaatu salaama yàlla nekk ci alu nabi ñan ñooy alu nabi salaa salaam yonent bi bu ñëw wa aalihi day am ñaari déggin buñ ne aal ci maanaam baat bi day yaatu say sa yenn mbokk yi la gën a jegeek ñëpp dañ ci daal dugg ñi nga bokkal maam eh, banu hashim waaye nag buñ ne aal nag ci yonent bi sallallahu moom ni mu ko taxsiise daanaka du génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna ali ibnu abi taalibin radiallahu anhu sayyidatuna fatima radiallahu anha ak alxasan ak alxuseyn radiallahu anhuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jël am mbalaan sàngu ci woo sayyidna mu dugg mu woo fatimatu woo alxasan ak di wërale mbalaan ma daana yàlla man ñii ñooy sama ñoñ waaw daal di jàng aaya boobu innama yuridu llahu li yuthiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahirukum tathira muy xadis bu wér bu ñëpp dëppoo ci ne wér na soxna sa ne ko defe naa euh, euh, euh, uh-huh. ko waaye ah bokk dama cee bokkul man mënu ko déedéet ah, soxna kat moom kër baayam la bokk kon nag lii boo ne aal moom day daal di yaatu waaye yonent bi moo ko taxsiis ñii di aalu nabi nag Muhammad sallallahu alayhi ñoom la sëñ Tuubaa wax na ñoom de làq nañ teraanga joo xam ne ñoom dong ñoo ko jagoo maanaam kenn fekku si ndax ñoom dañoo nekk ay jullit de ay saxaaba ñee bu ñu nekkee saxaaba ñoom ñu nekk nit ñu baax ñu nekk nit ñu baax ñoom it jaamu yàlla ñu dàq leen a jaamu ba noppi ñoom ñu bokk ci deret yonent bi ba noppi koo jege yonent bi tànn leen ne ñii ñooy sama aal kon nag am nañ ndam loo xam ne saxaaba yi sax duñ ko am saxaaba yi sax duñ ko am moo tax am nañu ne ñi ginnaaw yonent bi ñu gën ci nit ñi ñooy aalu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi doo ko ñëw mu ne li annahum lil wara saadaatun axyaaru ñoom ñii day ñoom ay tànneef lañu nekk ay sang mu tekke wasax bi sahbihi gis nga ginnaaw yonante bi aalu moo ci tege saxaaba yi doo ko ñëw wa bi ak saxaabaam ya nag yàlla na yàlla def ñoom salaatu salaam al ghurr ña ay sang man ña nga xam ne sabaxoo raw nañu aqraanuhum seeni maas is ngir baaluhum lenn ci ñoom haajaru ay muhaajiroon lañu haajaro gàddaay nañu wal baalu ñenn ña ansaarun ay ay ansaar lañu saxaaba yi ñaari xaaj lañu al muhaajiruun ak al ansaar ñooñ ñoo gën ñoo gën ñépp waaw waaw wasaabixuuna al awaluun min al muhaajiriina wal ansaari ñooñ ñu ñi gën ña ca tegu nag mooy ñi nga xam ginnaaw fatfa Makka diggante boobu lañ ñëw ñoom wala si na tabaawum foofu lañuy dugg ñoom ñii ñoo leen ñoo leen gën ñoom saxaaba yi nag sëñ Tubaa nee na raw nañu raw nañu lan raw nañu seenu maas ndax kat ñenn ñi ba yonantu ba doog a tàmbali nekk ci ay jafe-jafe lañ àndoo doog moom lu ñu dund ko ci lu metti seen gëm jarale ñoom ñooy almuhaajiruun abubakar ak omar ak usmaan ak aliyu nag euh, ñu mel noona ndeysaan mhm. ña ca des ñoom ñoo wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko boo ñëwee madina insha allah danañ la aar ni ñuy aare suñ bopp ku la nar rey daf ñu rey ba noppi yonante ba mu demee ñu defe ko ñoom nañ ko waxee woon sàmm yonante bi sallallahu alayhi wasallam aar ko fu xeex amee ñu génn xeex ñu génn xeex ba ñenn ña jihaat ñenn ña euh, génn doxa ca génn àdduna kon isbahdahum aajaru haajaru wal baadu ansaaru ñoom ñii nag ñoo gën moo tax alxuraan day wax ne ñi nga xamee ne ba yonante bi doo ko tàmbalee ñoo ko dimbale ànd ak moom gàddaay jàppale ko fat ko nee ñooñu moom seen daraja duñu yem kenn laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al fath wa qaatal ulaayika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qaatalu donte wa kullan wa'ada allahu husna ku nekk yàlla dana la defal yiw nag nee na ñi nga xam ne nag ca min qablil fatihi ci jamono yu metti ja lañ gëmoon di xeex ak a jihaad ñoo gën a màgg daraja ñi nga xam ci ginnaaw bi nag lañ gëm donte ñoom ñëpp am nañ tuyaaba ju rëy fa suñ borom subhanahu wa taala loolu laa doon juñ mhm. kon ñoom it am nañ ak am nañ ak jagle ñoom saxaaba yi am nañ ak am nañ ak jagle lahum am nañu ñoom saxaaba ya ladallaahi fa yàlla taxsiisun ak jagle mi ngi noonu bi ma wafiru ca la ñu toofu mooy ca la ñu am hum ñoom saxaaba ya daal an nujuum ñooy biddiw ya li xaw mi ñeel aw nit ñoo xam ne saaroo dañuy dox fit du jaay ci biir ak lëndëm lahum ñeel la leen ladallaahi fa yàlla tanwiilun ak jottaliku ak nangu ak may safaa goo xam ne saafara na ilalan ay ràgg izaa yàlla ba nga xamee tàqalikoo naag addinaasum ay tilim tilim wa ak wa ak daarum ak i nëx-nëx alkulla képp ci ñoom mu neex nga ne is ngir zaaya la dañ na zaaya la dañ na àdduna addnaasun ay tër ay taq-taq wa ak daaru ak ay nëx-nëx alkulla ñeel képp nee saxaaba yi am nañ ak jagle ku dul ñoom ñoo la gën te loolu ñu ngi ko jële ci li ñu defal yàlla ak li leen yàlla faye jàng na aaya bi léegi nee saxaaba yi dañoo jub ba képp ku leen topp rek da nga jub ma ngi leen nit ñu nekk ci digg lëndëm di dox ni ñu tegtaloo ci biddiw wa bin najmi hum yahtadun alxuraan nee na de bu njëkk ci biddiw lañ daal gindikoo boo masaan bëgg a dem fenn da ngay xool biddiw bi rek ndaysaan fa mu jublu nga xam ne dëkk nàngam biddiw moo ko tiim nga di ko topp ba àgg mi ngi ngay ñëw Tuubaa euh, daal di gis jumaa ji waaw gis soora bi ko rek nag topp ko ba keroog nga agsi ci moom nee ñi nga xam ne dañoo xamut nga ne bu ñuy dox jëm ci yoonu yàlla dañuy mel ne dañoo gëlëm ñoom mën nañoo tegtaloo ci saxaaba yi ba gindiku ndax alxuraan nee na fa in amanu bi misli amantum bi faqad daw ku jub ni saxaaba jube euh, kon da daal di gindiku nee na ñoom yàlla da leen a jox ay daraja ak ay may yoo xam ne dafa saafara mboolem seeni ràgg-ràgg seen mbooleem jikko ju ñaaw suñ borom da koo saafara ci yonante bi sallallahu alayhi moo tax mu ne kenn ku ci nekk ñoom benn téer tëq ko benn téer tëqul fenn dafa seet wicc ñoom saxaaba yi nee na xadda jubilu dañ leen a bind bi nusxi ci ak laabiire lil xalqi ñeel mbindeef wal imaan ak ngëm yàlla turan ñépp nag mbindeef yépp waqaf di la dañ leen bind tamit ak suufeel la nga xamee ne alat fa da koo yëkkati kufaarun ay yéefar <laughs> ndeysaan ne saxaaba yi ñoom ashid eh, eh, ashiddaau ala al kufaar waaye nag ruhamaa u baynahum bu dee ab yéefar dañuy tar ci moom dara dañuy tar ci moom lool duñ ko may dara aizatin ala al muminin aizatin ala al kafirin dañuy tar ci ab yéefar nooy ci moom mu ne xat jubilu ñoom dañ leen a bind bi nosi ci ak laabiré lil xalqi ñeel mbindeef yi waaw di la yee wala imaan yi turan ñoom ñëpp nag waaye dañ leen bind tamit waqaf dil la si ak suufee la xamee ne aalato da koo yëkkati ku faaru ay yéefar yéefar yi nag lañuy màgg màggale ka da ca sonn ñoom dañuy ñëw yàqate loola ñu ngi xërëm yeeg yoon a demee <laughs> ñu ngi noonu wasafhu ak Euh, wala boog wasafu njëggal wala xelmu ak lewet dë ban aada la lil jamiixi ñeel ñëpp ñeel ñëpp ci ñoom waaye nag xëy na foofu kon day nekk dë bun mhm. kon naa nga naa wasafu jëllale wal xelmu ak lewet lil jamiixi ñeel na képp ci saxaaba yi dë ban ci lu sax kamaakaadoo comme niñ nekkee woon yuddi yu moon a daan saxal taqwan ak ragal yàlla xay suma daaroo fu ñu mën a wëndeelu jëm fa nee na di jéggale ak lewet loola dafa nekkoon seen jikko ñoom ñëpp naka noonaat fuñ ma a dem moo xam dañoo wét wala dañoo wétaliku dañuy ànd ak seenu ragal yàlla ndeysaan mu daal ci seppi nag ñeent ñi nga xam ne nee ñu ñoo ca gën laa siyama rawatina alxulafaa ñi wuutu yonante bi sallallahu alayhi wasallam kootaay la nga ne ko a siddiq sayyidina abu bakar ma umar ànd ak sayyidina umar usmaan hum usmaan seen waa aliyun ak sayyidina aliyun neex ma al baax yi ñii amuñ dañ leen cee settee amuñ ci morom ñoo fi wuutu yonent bi te rafetal kootaay la doon def ni yonent bi doon def seen kem kàttan yonent bi kenn mënta mel ne moom wuute nañu ndax nii ñu wuutoo yonent bi dañuy gënee noona li ci ëpp ci téere yi loolu nga ciy fekk dangay gis ne dañ dañuy tegale rek ka njëkk a euh, toog xalifa teg ca ka ca tege waaye am na ñu ne déet nekkul ne nag ne noonu ñu leen tegale dañoo gënantee noona ñu bari ci julli ñi te mu siiw ne ñu Seydina Abubakar Siddiq moo gën ñu bari ci jullit ñi ne ñu Seydina Aliyun ibnu abi taalibin radiallahu anhu moo gën ndax moom daa bokk ci alul bayti te ñi bokk ci alul bayt duñu yem ak ñeneen yàlla xam dëgg-dëgg yàlla xam ndax amul benn aaya wala benn xadis bu ñëw bu dëggal lenn saxal ko dëgg-dëgg ba mu leer euh, moom daal ñoom ñëpp baax nañ rek yàlla yàllaa xam nee na ñeent ñii moom kenn rëwu leen alayhim yàlla na dool lay nekk ci ñoom addahra diiru jamono ridwaanul ilaahi ngërëmal buur bi kamaa xanis tanaaroo ni nga xamee ne noonu lañu leer loo bi nuuruñ ci ak leer goo xam ne minhu tukkee da ci mu al anwaaru mboolem xeeti leer yi waaw ñi nga xamee ne ñoom ñeenti saxaaba yi dañoo dem ci yonante bi niitu leeru ci leer googu leeru yonante boobu nga xam ne gépp leer ci moom lay bàyyi ko ñu defee noona maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ngërëm waaw ñaan gu yéeme la bi mooy genn leeruk suñu borom gi mu wàcce fii ci àdduna yeneen leer yëpp day bàyyi ko ci leeram googu ba ci yonante yi sax ya ko jiitu woon ba ci yonante ya ko ya ko jiitu woon nee na saxaaba yi nag dañoo ñëw ci leerug yonante bi ñoom niitu ci ñoom taal ci ba tàkku noonu ñu defee noonu nag noonu yàlla na leen ngërëmal yàlla euh, topp fu ñu mën a jëm waaw sëñ bi daal tàmbalee ñaan nag da dana dellusiwaat ci ñeenti saxaaba yi ku ci nekk mu tudd dara mu tudd dara ci sa mbir waaye nee na sa altu ñaan naa rabbi ya saa borom bil muxtaari ci daraja yonante bi summa bihim topp ci seen daraja ñoom saxaaba yi ñoom ñëpp an ba mu dem mu dàq al yawma tey ci man moom yàlla azan bu bàkkaar wala aaru ak gàcc maa ngi ñaan ci yàlla ci barkeb yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barkeb saxaaba yi def naa wàllu tawasul moom leeraloon naa ci la may leeral incha allah nee na maa ngi ñaan ci yàlla ci barkeb yonante bi ak saxaaba yi mu daq ci man bépp bàkkaar wala bépp jikko bu ñaaw boo xam ne day waral gàcc euh, loolu nag nit ñu baax ñi ñoom seenu tuub mu ngi noonu fu ñu tollu ci yàlla boo ëllëgee dañuy toll fu ko gën a kawe su ko dañuy xeeb fañ tolloon démb te dañuy defe ne nañu waroon a wormaale yàlla defuñu ko moo tax fu ñu toll dañuy tuub wallahu taala alam